Euh, ci wàllum économie nag tamit euh, économie moom mënul taxaw waaw mënul taxaw donc foog nit ñi continuer tamit euh, bu ñu commencé moytu continuer tamit seen activité continuer liggéey continuer gëm seen bopp et puis amul raison Sénégal bañ ci bañ ci bañ ci bañ ci bañ ci génn ñun daal en tout cas am nañ yaakaar suñu conviction profonde am nañ yaakaar ne incha allah c'est des projet comme ça ñoo mën a développer Sénégal mooy projets yi nga xam ne dañu ñëw ci gox sanc fa di jël ñu ñu wër ñu wër gox bi tendre leen la liggéey ak ñoom et puis wax dëgg yàlla ay doomu Sénégal yoo xam ne yàgg nañ bitim réew ñëw def loolu yàlla incha allah na ci jàpp et puis am na am nañ ñun tamit en tout cas en tant que COFINA en tant que directeur général de COFINA c'est vraiment ce genre de projet qu'on aime financer qu'on aime accompagner